Heavy Bass. No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 réew mi ku ci laaf bi tar ci yow rek nga xëy uti kaala ay sungu fa ki béjjen leewali gët dëkkee dóor la xew ca put doy na war ab sëriñu tari yaax dal la fa ab famille hébergé ngir woo doon jëf lu baax sëriñ ba jaar ci suuf di tëddee seen doom bu jigéen law famille bi hébergé sëriñ bi famille Diallo lay wuyoo sëriñ ba di wuyoo ci turi Ama Thiam li mu naxee xale ba jëf ko jëf ju ñaaw jooju nag nee ko liggéey ba xale bi xàmmeetul Kajoor ak kóolite gi waajur yi amoon ci sëriñ bi yëpp ma ne am ponkal nga fat ko ci sa kër bakook say doom yi jigéen lu fa xew yaa ko def xale bu jigéen bi mu ngi wuyoo ci Turaa Jàllo sëriñ ba nag daf ne ko koy defal téere waaye téere bi mu koy defal ngir mu baax dafay ànd ak maniw waay waay waay ci ay saay saay naka noonu ci la dëkkee tëddee xale bi dal di koy def objet sexuel am xale bu jigéen bi nag bi mu demee ba sonn ci la dénoncé sëriñ bi ci ay way ma ko nag yéex nga koo def naka noonu ci la waajur yi daal di saisir gendarmerie ci kanamu enquêteurs yi nag a ah, jàllo di xale bu jigéen bi nee na sëriñ bi première relation yi ma am ak moom daf ko doon forcé mais bu njëkk bi bi mu jàllee ci la ko invité waat ke si bi xutaan waaye kii gone gi de ne ko nag foog ñu sëyaat ndax man ni bu njëkk bi mu jëloon baaxul way way way way mim réew dana toj waaye tamit xale bu jigéen bi révélé na ci kanamu enquêteur yi ne du sëriñ ba njëkk a yegg ci moom way way way suñu doom yëpp rëcc nañu ca kanamu attekat ba sëriñ bi weddi na xale bi ba tëdd ci naaj bi ndax lim fa wax mooy ne xale bu jigéen boobu corom la woon mësu ko forcé ci dara ñoom ñaar ñëpp li ñu doon séq ñoo ca àndoon ko def ci péri waaye nag ak layam yooyu yëpp terewul yoon dan ko ñaari weeru kaso yi mu war a tëdd amande ko lu toll ci benn million waaye ma ne gis ngeen boo leen bàyyiwul sëriñ yi dañeen leen rey laa la wax moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave korona laa wax la xew ca Saint-Louis day na waar ab waay daal moo fa doon jéem a wiyoole ab soxna soxna si daal di langaamu ci awra yi waaw góore waay basa waay mujjee fëx bàyyi fa tubayam kaasise di ab jeeg bu am ñetti doom la ab waay buy woo ci turu am caw fekk ci neegam dal di koy proposer cinq mille francs ngir tëddee ko waaye ndaw si bañ ba tëdd ci naaj bi naka noonu nag bi loolu amee ci la ko waa ji doon jéem a forcer ndaw si résister ñoom ñaar ñu mujjee xeex ci néeg bi waaye yéen mbaa lii la jar na ko ma ne xeex bu metti laa wax ba jooyu doomu ndaw si moo mujj mujj alerté benn waay bu ñu naan beef ña naka noonu waa ji ñëw intervenir dal di leen atte waaye am ca waa ji doon jéem a violé ndaw si bi muy génn kër gi fala bàyyi pantalon ay dallam ak portable am waay waay waay kii xaw na suduraam waay ci kanamu yoon nag am caw lu tax mu bàyyi fa tubayam yu muy xeex ak ndaw si ndaw si dafa langaamu ci ay awraam dal ci pantalon ba mu mujjee summeeku bi coow li takarnaasee ngir bañ kenn fekk ko fa ci la génnee kër gi fëx bàyyi fa tubayam ay dàllam ak portable am <laughs> way way way way way way way way mim réew li fi ne kenn mënu koo wax mais li xew ca Kédougou nag doy na waar doy na waar ba fu doy waar yem ab jigéen boo xam ne da doon matu doon laaj ñu war ko césarienne ñu ko doon jéem a sauver ci li ñu wax doon jéem a génn doom yi ba ndaw si des ci àdduna des àdduna bu doy waar li xew ci suñu hôpital yi daal métti na métti na trop mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz